alors ba tey yéen a ngi dund ak ñun guddik 17 avril macha allah ñu taxaw ak ndaanaan borom appel yi Thioune Boutique donc ànd ak ay xaritam lëx-lëx ak yeneen gars yi Thioune ñu ngi lay waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax waa am nga taw feex waaw waaw ñu ngi sant yàlla bu baax baax ñu gis la nga ñëw ci 17 avril bi lan nga mën a wax ci bés bi waa bis moom liñ si mën a wax bari na mooy sëñ Béthio suñ borom dafa dogal ñu yàgg koo bëgg yàggoo koo topp euh, yaakaar naa bii mooy suñ dixième édition ñuy ñëw 17 avril ba dëgg yàlla chaque ñun moom mi nañu ndax chaque année dañ fiy ñëw te bi suñu becc di woote Madina Salaam it euh, ak fu mën a woote rek heure waaw. lan moo tax nga ñëw ci sëñ Saliou Ndigal Thioune lu tax dem muy soxna waaw man nag yàlla dafa dogal man ñëpp ñëpp dañ maa bëgg man ni ma koy waxee rek dama wax sànq lëx-lëx ma ne ko man ni ma maanoo ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall maanoo ci diggante euh, sëñ Saliou Thioune ak Soxna Aida noonu laa maanoo ci diggante Wally Seck ak Sidi Diop man yàlla dafa dogal damaa maasalee ñëpp ma bëgg. waaw loolu moo tax man moom daanaka fu nekk laay dem waaw fu nekk laay dem fu nekk laay dem man waaw. Euh, ñu gis nag euh, yaa ngi def liggéey boo am solo ci réew mi appel yi di takkarnaase ngay woote mais appel yi mosoo ci am benn inconvénient. non non appel moom xanaa benn rek muy mbay peex ba mu ko wooyee te daa tiitoon rek moo taxoon mu xawoon a décoré mais bi mu jeexee jeex moom daa plante woon waaye après bi mu xamee ne man la la la jeexal lépp boo ma kër may ma xaas bëri uh-huh. doomam nee na ma léegi heure bu toogee daan kaay leen jàppal ma loolu mbégte la quoi. waaw. suñ biñ la joxee convocation Mbaye Pekh bi nan ma dara parce que naa ne du mujj fenn ndax Mbaye Pekh su bi ma ko wooyee euh, ko bindal ma convocation commandant bi woon na ma la mun ma waaw kon xamoon na ne man te xamoon naa ne parce que xam naa ne daa xamutoon rek kan a sacrifice la rek. waaw <laughs> loolu la yaakaar à part Mbaye ban moo la gën a marqué ci ci kii nga def. waaw man na appel yi ma def yëpp marqué na ma waaye bi ma gën a marqué nag mooy borom débiteur bi nga xamante ni dama ko waxoon ne ko euh, dama dama sotti dama doon sotti suuf pare arrêté débiteur bi daan ne baal nga ma mu ne baaluma ko maa ngi ne ay xel di ñëw téeleen ko pa boobu boobu moom kooku moom damaa marqué ndax euh, euh, boobu moom dama koy rey rek dama koy rey rek waaw waaw waaw dama koy rey rek dama koy rey rek mu mel ne affaire ma ngi dox ndax son sor yaa ngi dugg waaw waaw waaw ñu ngi sant yàlla bu baax nag moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax ndax comme li nga wax rek nit moom du fekkee da nga nekk ci benn affaire di ko def te saagoo waxoo lu ñaaw képp ku la gis rek day bëgg a dugg problème ci yow dëgg yàlla am nañ ay sponsor yoo xamante ni macha allah ñu ngi jàppale baax a baax baax ci lépp lu dugg nag waaw. sponsor yi si ñaata lañ toll. waaw sponsor yi moom dëgg yàlla moom bari nañ moom am na ñoo xam sax instant dama leen taxaw di leen xaarloo pour du kenn jeexale ma dugal leen. waaw mais mais lan moo tax sa tànk bëriwul Ndakaaru lan moo tax ngay toog Touba rek. waaw Dakar nag dama fay ñëw parce que yaakaar naa weer yu passé rek ñëw naa fa parce que am naa fa appartement cité kër góor gi am naa benn sponsor boo xamante ni moo ma luyeel foofu cité kër góor Euh, ñëwoon naa fa keroog tourné ay émission mais ñaar fa génn ma sax sama appartement dama faa toog deux jours trois mu jeex ma ñëwaat parce que li tax euh, bëriwut ay tànk mooy comme que man damay liggéey bàyyi TikTok bi teewumaa liggéey damaa yor bidig di liggéey loolu moo tax ndax mënoo bàyyi sa bidig topp TikTok bi rek parce que TikTok day jeex la boo xamante ni suba suba mën na fay jóge te tey ko ci yow rek dañ lay dëkkal loolu moo tax nag man damaa nekk ci bidig bu pare nag loolu moo tax am ma temps daal di ñëw Dakar lu bari waaw. kon mos ngaa war a war a waru gaale waaw man waru gaale man ma daaw rek def naa ko daaw weer daaw rek parce que daaw daaw damaa woor dem marché Ocass di jënd bagage comme tomeeg nii rek koor gi jeex ma dem marché Ocass jënd bagage waa ji ñëw ba ci duur daanu wi fekk boobu ñaari tonne ceeb la euh, mu mu mu mu daanoo moom ma nekk fa di ko jàppale ba ci yàgg mu dugg naan ma ne ko alma ma naan ci daaw rek la loolu yàggut waaye du ñàkk jom waaye tàngaay yu léeg moo koy war ndax soo fee sa bakkan la quoi <laughs> kontaante bu baax rek xam nga sëñ Saliou moom ndaw ñëpp moo nu defar tey képp ku koy sant rek ñun ko koy sant le yëpp àndoor ñëw ñi fas yéene ànd ci sant moom ku koy sant rek ndaw ñi nga koy santal te bis moom dafa nekk bis boo xam te képp ku sopp sëñ parce que boo mënoon yow yaa koy def képp rek euh, nu ndaw ñi la koy defal waaye nag yéen di taxaw am rafetlu daal seen taxawaay lu yaatu rek yéen a ko yaatal ñu ngi leen di ñaanal li ngeen bëgg lépp suñu borom defal leen ko ci barke Seydina Muhammad jaajëf murid jaajëf waay